Euh, seen ay matériel seen ay euh, magasin kon moom mi ngi woowaat ndaw ñi di leen conscientiser ne leen carrément bu leen nangu benn politicien di leen manipuler wala di leen xeexaloo te gisoo te gisoo leen fa njabootam. waaw ndey xam nga boo fàttaliku waxoon naa la fi que ni y a des opposants yoo xam ni. Mhm. France ah, bu yaakaar ne bàyyi na de am na ci ñoo xam ni mi ngi leen di financer. Mhm. Euh, pour que ñu ñu ñu ñu. ñu jël ñu jël nguur gi. loolu mhm. maa ngi ko nangoo woon ci Cheikh Omar Diagne. Mhm. Euh, mais par la suite am na yoo xam ne ñun xam nañ ko ci. Mhm. mais du ñu du ma du ma kenn nag. mais am na ci fii ci Sénégal yoo xamante ni ni boo leen gisee ni ñuy opposé quand ñoom dañu xamul ni. li xale yi daan wax mu njëkk naan see bi dalee fee bàyyi. ñoom see bi daleen fee bàyyi jamono jii nii. parce que ni ñu daan politique daan ko opposé woo. opposition boo xam ne da dem di waxtaan tegante dil fii. nangam sangam di raayante. ñoom dañu xamul ni Sénégal dépassé na stade boobu dépassé na ko ma li ëpp ci ñoom bokk loolu mooy dëgg <laughs> loolu c'est la réalité en fait léegi nag ñoom bu ñu yaakaaree que ñoom dañuy toog fële mhm. naan ndaw ñi c'est parce que gis nga wallahi billahi wallahi taala Ousmane mhm. Sonko ñu bare bare ñu ngi toog naan Sonko nangam boo yi muy génnee mais Sonko li mu am opposant bu ko fi amoon jël dëgg la parti ah, ah, au pouvoir bu fi amoon sax jël boo xam ni am nga ay militants yoo xam ni soxla nga boo a ah, ah, boo boo soxlee xaalis ñu cotiser jox la boo wootee ñoom ñëpp ñu génne ci doo leen jox fukki dërëm dëgg la euh, boo bu ñu la naree jàpp ñu taxaw xeexal la opposant bu ko fi amoon jël parti au pouvoir bu amoon jël kon pour man yii nii yëpp parce que mm-hmm. nag mënta ñàkk ci ñoom des fois ah, jalousie no la ko tuddee il faut que ñuy wax mbir yi mu leer. Mhm. Euh, parce que jëkkoon nañu fi gis si biir fi gis mais loolu. maanaam parce que interpersonnel yi moom moo yaatu quand même. ñu ci bare bari ci ñoom. Mhm. nekkul jafe Sénégal moom moo leen. <laughs> moo leen ñor moom moo leen ñor mais euh, dañuy euh, profité pour ñoom seen ay intérêt personnel lii moom mhm. mooy dëgg kon yaakaar naa que ni jamono jii nii Sénégal yi dépassé nañ maanaam ndaw ñi li ñu war a xam mooy ndaw ñi nekkul nii buñ buñ fàtte ni ndaw ñi wallahi nekkul ni Ousmane Sonko rek rek moom moo leen tax a jóg. Mm, Ousmane Sonko taxul ñoom ñi dem di faat seen bakkan. Mm-hmm. seen avenir moom moo nekk en te ñoom loolu la ñuy jóg di xeex. Mm-hmm. Ousmane Ousmane Sonko moo woo moo woo ndaw ñi rek na keneen woote ba xam da ngay ndaw ñi daan génn. Mm-hmm. c'est la personne de Ousmane Sonko. moom mooy euh, tax ndaw ñi di génn di xeex bay bay bay bay bay bay ñàkk seen bakkan. la preuve ñoom ñoo dox wala keneen. bu fekkee ne li mu woote moom moo tax ndaw ñi génn bay xeex di ñàkk seen bakkan na keneen woote boo xam ndaw ñi daan génn. Mhm. ndaw ñi seen avenir la ñu nekk di xeexal. c'est parce que Ousmane Sonko moo woote ñu ñuy génn mais Sénégal la ñuy xeexal aussi. comme ni seen avenir moom moo nekk en jeu loolu lañ nekk di xeex. mais mhm. c'est pas la léegi nag. ñoom pour ñoom ba tey ndaw ñi Ousmane Sonko li mu leen di woo parce que daf leen di woo nii rek ñu bëgg a génn génn déedéet. Mhm. nekkul def ay ndaw yu responsable. Mhm. ñi fi génn ñëpp ëppoon nañ dix huit ans ma am am nañ vingt ans jëm kaw. Mhm. kon ñooñu ils sont assez intelligents xam ku leen di dugal ci kàmb ak ku leen di dugal ci kàmb. ñu woo leen ñu parce que Ousmane Sonko demul nag wax dëgg fa ne yàlla yeewu leen buum ci baat ñu leen da ngeen di génn par force. wala par la force de génn kon ñoom il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nangu di di di di di ñuy nangu loolu en fait. di di di xalaat loolu parce que mhm. euh, Ousmane Sonko demul. Euh, yeew buum ñu ci ndawam ñu parfois ñu leen di ngeen di génn wala mu jox leen xaalis daf leen woo ci loo xam ne xëy na ndaw ñi gis nañu seen bopp intéressé na leen mhm. lii moo tax ñu génn gis nga nag loolu noonu fii ak message boobu ñu xool nu ñu ko réglé pour une bonne fois pour toutes bu ñu jóg ci di maanaam euh, woru wala mhm. di euh, doxale loo xamante ni si nii à chaque fois mu ñu paree dañ naan kët mbir mi moom bu ñu toogee seen dux daan xam ni kët lu ñu wax wala ñu doxale effectivement du loolu mais dañu war a toog ñu jàngat analyser objectivement li nga xam ni message bi nga xam ni pendant des années et des années ndaw yi ñu ngi koy lancer les politiciens et c'est valable pour tout le monde tout politicien boo ci Ousmane Sonko keneen ak keneen ndaw ñi ñu ngi leen di lancer message boo xam ni ñoom ñëpp am nañu intérêt ñu décrypter ko et c'est très important mais bu ñu fi toogee naan Ousmane Sonko mooy génnee ndaw ñi mooy woo ndaw ñi ñuy dee na ñoom nañu woote boo xam ndaw ñi daan génn di dee voilà mi ngi noonu Fatima nan nga jàngatee ba pare sax Kébé voilà Euh, ba pare dafa am loo xam ne euh, politiciens yi ñu ci ëpp dañu bëgg di doxee noonu. Mhm. muy à chaque fois di jéem a euh, lëndëmal xelu askan wi te nee naa sànq. Mhm. dépassé nañ jamono jooju bu baax a baax. Mhm. moment bi ñu nekk ndayaa mënoon na yow ci sa jëm bopp yow opposant nga ba pare ngay xool ki nga xam ne sa moroom opposant la nga yëkkati ay kàddu di ko fa teg parce que moment bi ñu toll mën nañ jàpp ne que ku ci nekk rek boo sañoon boo wootee li nga xam ne moom mooy sa meeting wala nga wootee li nga xam ne moom mooy sa marche déjà nga am mbooloo bi nga xam ne bëgg nga ko ndax kàddu yooyu yow ndeyaa yaa ko fi yëkkati à chaque fois ne que mhm. politicien nit la gën a bëgg kon donc mhm. euh, na nekk voilà mi ngi noonu kon donc euh, am na loo xam ne xëy na ñoom war nañu mën a bàyyi staff boobu wala war nañu mën a bàyyi doxalin boobu di ko mhm. doxee parce que nit ñi instant bi xam nañ bu baax a baax seen vraie nature muy ñenn politiciens yi euh, day wane ne que rek carrément askan wi ñoru leen mhm. parce que man dama naan askan bi bu dee moo la ñor fépp foo mënti nekk rek wala même bu fekkee ne que yow yaa ngi sa biir kër mhm. kon donc euh, di nga mën a fexe nan ngay def ba convaincre ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi mhm. waaye à chaque fois di xool ne que man mi sama moroomu opposan bi naa yëkkati ay kàddu wala naa wax yi pour nit ñi xeebee ko alors que yow la ngay wax wala kàddu yooyu nga yëkkati laataa nga koy wax sax wala boo ko waxee nit ñi xam nañ fa nga jëm ak lan moo tax nga yëkkati ko mhm. kon nañ jéem a nañ jéem a dépasse staff boobu jéem a jéem a xool liy doxal réew mi jéem a jéem a fexe ba politique bi nga xam ne moo fi amoon démb ak barki démb. Mhm. ndax man dama naan à chaque fois politique bu ñu ko doon définir définir dañ naan c'est l'art de bien gérer la cité. Mhm. mais fii biir Sénégal moom mën naa ne c'est l'art de bien mentir nañ ma jéggal ci kaddu gi. ndax ku mhm. ci nekk yaa ngi jéem a wax même bu leer na ne li may wax nii amul mais de toute façon naa ko wax pour nit ñi fal ma wala naa ko wax pour nit ñi ànd ak man kon donc yooyu nañ ko bàyyi te jéem a liggéey bàyyi wax ji bàyyi foo gi au moment où xëy na yow gis nga ne ko opposant bi moom mi ngi fexe. wala di teg ay projet yoo xam ne fexe na ba askan wi xëy na ñenn ñu ci ëpp jox ko bopp wala fexe ba xëy na teg ci table bi loo xam ne doy na leen ba fépp fu mu wootee ñu ñëw wuyu si ko bu baax a baax yow oma moins yaa ngi fe jéem a war a mën a fexe yow loolu nit ka am wala mhm. nit ki loolu mu liggéey yow nga dem liggéey loolu ba am ko wala nga am sax lu ko raw noonu mhm. yaa ngi topp nit kooku ci la muy wax wala ci kàddu ya muy wax nga jéem a fexe noo def ba bu waxee gauche nga dem ne sénégalais yi kii gauche la leen wax waaye jaarul gauche droite la wa la mhm. jaar kon donc yooyu ndayaa jot na pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te encore une fois sénégalais yi kenn mënatu leen nax kenn mënatul aussi lëndëmal li nga xam ne moom mooy seen xel bi xel yi nañu liggéey te bàyyi coow li euh, te bàyyi maanaam gis nañ ne que suñu morom mi ngi liggéey wala mi ngi jéem a def euh, nu mi ngi jéem a mhm. xool nu mu def ba avancé mhm. man naa ko bàyyi te jéem a xool nan laay def ba raw ko mhm. parce que kat nit ki boo gisee ne xëy na mi ngi ci voie bu baax wala nga gis ne que xëy na yow la ngeen bëgg yéen yéen a ko bokk da ngay fexe moom def la mu def wala nga def lu ko gën mais bu ñu demee ba maanaam xool yow ki nga xam ne moom mooy sa sa sa sa moroomu opposant nga yëkkati ay yenn kàddu yi di ko teg te képp ku dégg kàddu yi xam ne nekkul ay kàddu yu tegu képp ku dégg kàddu xam ne aussi ay waxu kesew kesew la nañ bàyyi caaxaani te liggéey te bu fekkee ne li ñuy woote effectivement moom moo am nañ ci dox wax ci muy maanaam li ñuy woote à chaque fois naan askan wi moo leen ñor nañ ci dox wax ci ndeyaa Mhm, voilà nañ ci dox euh, wax ci euh, Fatima mhm. mais dañu gis ne à chaque fois dangay gis ne euh, par exemple ki nga xam mooy Thierno Bocoum mhm. opposant la nekk ci biir opposition bi léegi nag ñuy gis ne loolu dafa bëri da ngay gis nit koo xam ne opposant la mais dafay xeex moroom opposant te jamono ji ñoom soxlawuñ li ni mel booloo lañ daal di soxla parce que loolu moo leen di wan ne askan wi ñoru leen seen intérêt bopp moo leen sa baaraam réew mi dara beesu fi. dëgg la encore une fois moom mi naan. nit ñi bu ñu génn xeex déglu ko. Mm-hmm. à l'époque moom mi doon wax lii tey. li nga xam ni moo tax ma ne la. Mm-hmm. ñu ci bare bari seen ay intérêt bopp moom ma leen tax a jóg en fait. Mm-hmm. mu am ñoo xamante ne jàpp nañ leen dugal leen ci kaso yi man mii ci laa bokkoon dóor leen ay lacrymogène ak lu ne ñu subir ko ñu ne déedéet nañu muñ. nañu xeex parce que suñu réew la parce que jàpp dañ ne changement war na am fii ba ñu waree xeex ñëpp xam nañ ne ba ñuy war a xeex te xeex moom dinañ ko def réew il faut mu am ñu jël seen responsabilité mënul ñàkk réew réew il faut mu am ñu sacrifié pour réew mënul ñàkk du ay jooy moo koy dindi du ay mettit jëf moo koy dindi jëf rek agir rek moo koy dindi. au nom de quoi ça dit que. de. jeexagul de dee wala ñu bëri dee après et après et après ça ça donne lay apporter Sénégal qu'est-ce que ça apporte au Sénégal lan nañ ko wax concrètement sa n'apporte rien du tout. ça n'apporte rien du tout. fii génération bu ne am na ñu xeex pourquoi tey on prend pas nos responsabilités pour que les choses changent pourquoi tey on doit se confiner si ay attaques si ay critiques wala être en marche derrière le clavier ils font quoi ils restent derrière le clavier ils restent chez eux ils pensent que c'est Thierno Bocoum qui doit aller dans la li ñu war mooy taxaw lu ñu war. mooy résister. képp koo xamante ne ne taxaw nga pour xeex mais jiitalal sa bopp d' abord jiital sa njaboot. lii mooy kàddu yi nga xam ne ci na ko. ak tamit après après ci la. Euh, ah, <laughs> kon mu ngi. mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nii ndeya mhm. kon ñun li ñuy wax rek léegi bu waxee ñu naan journaliste yi ah, pour am langue de bois pour lan te dëgg bi nekk nii lan moo tax lan mooy ndeyu euh, journaliste du jaar ci dëgg bi mhm. léegi après dangay wax ñu naan la euh, na nga nangam dara dañuy jaar ci digg bi démb moo fi doon wax ni nit ñi dañu war a xeex dafa war ñu war a sacrifier wu tey bu mhm. toogee fii moo tax yow des fois sax yow da ngay xalaat man ci ban Sénégal la ñu nekk quoi. ay nit yoo xam ni eh, euh, bu ñu waxee li démb bu tey ñu wax leen wax ñaari wax ñoom ndeyaa loolu du dara si ñoom. Mm-hmm. ndax defe naa ne ñoom comme ni ko. Euh, Ismaïla Madior Fall yëkkatee mhm. rek kàddu yooyu di ministre de la justice nee na moom euh, peut-être euh, troisième mandat lu war a mën a nekk la sans dépend ci position bi mu nekkee mhm. waaye man dama naan politicien aussi noonu lay doxee di ko waxee ñoom bu teyee mën nañ wax a suba ñu wax bee sans dé suba ñu wax bee sans départ rek ci position bi mu leen fekkee mhm. te defe naa ne loolu moom Euh, sénégalais yi moment bi taxaw nañ temm pour mu jóge li nga xam ne moom mooy fii suñu biir réew mhm. mënatuñ ñoo nax mënatuñ ñoo teg xel mënatuñu aussi lëndëmal li nga xam ne moom mooy suñu xel yi dëgg la parce que mënoo ne yow tey dangay wax li wala nga yëkkati ay kàddu ba ñëpp naw la ci bala kàddu yooyu ñëpp jël la ci jiital la ci parce que nit ki lii xew suba yàlla rek moo ko xam. dëgg la lii xew suba Sénégal yi mënuñu ko xam xam mais bu ñu la falee wala ñu jiital la ndeyaase parce que xëy na yaakaar lañ am ci ñoom. Mhm. mais gis nañ ne que ñoom à chaque fois dañuy bëgg di ñu fowee bu ñu amee suñu soxla voilà mi ngi noonu ñu ñëw di ñu sibooru. Mm-hmm. lépp loo xam ne xëy na bëgg nañ ko wala suñu mbébét la ñu ne ñoom dinañ ci taxaw une fois nag ñu am lu ñu bëgg kenn du leen gis mm-hmm. wala bu ñu demee ba yàlla def ñu nekk beneen position après ñu changer discours bi nga xam ne defoon nañ ko et c'est malheureux voilà mi ngi mi ngi noonu ko en léegi ñoom ñooy xëy suba bu leen li arrangé ñu waxe ko nii mm-hmm. bu ñu xëyaatee suba li arrangé la ñu waxe ko nii sànq wax naa la fi nii opposant yi nga xam ne dañ leen di financer pour que ñu dem moo tax Sénégal gis nga ñoom nag léegi Euh, ba tey xamuñu ni sénégalais yi ndaw ñi ñoo leen gën a yeewu fuuf te ndaw ñi ñoo leen ëpp xibaar ñu leen gën a informé mm-hmm. que ñoom ci saat bi ñu toll jamono jii li ma wax sànq rek seebi da leen fee bàyyi te ñoom ba tey comprendre ñu xamaguñu ni seebi da leen fee bàyyi dëgg la voilà doy na waar mi ngi doon nag mu nekk mbir moo xam ne Thierno Bocoum moo yëkkati yi les kàddu euh, ndikk démb def ab vidéo lancé ko euh, mu nekk kàddu yoo xam ne daf doon alerte euh, di wax jeunesse bi ne bu leen génn bu leen nangu kenn di leen manipuler bu leen génn tamit si ñoo xam ne dañ leen génnee de seen ay njaboot a nekk fa mais na nga xam ne nag nit ñi wala ñeent Sénégal lañ ko jëlee ñu ko jëlee comme si euh, Thierno Bocoum dafa nekk ci biir opposition ba pare euh, nekk ab opposant ci biir opposition euh, moo war sànq ñu daal di leen tegal VAR maanaam la nga xam ne Thierno Bocoum waxoon na ko que nañ génn xeex nañ génn résister tey moom la booy di moom la xale yi di def mu ne leen bu leen ko def kon mu nekk la mbir moo xam ne VAR ko dul xalaat la neex mën nga koo def l'émission nag tire sa fin Kébé Mbaye la nga daal di tàggatoo waaw ñu jaajëfal